asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk taalibe yi maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay itam te di leen ñaanal tawfeex Sëriñ Tuubaa te di ko ñaanal suñu bopp xanaa doon ñëw di leen fàttaliwaat li nga xam ne moonu boole ñun waa diwaan bi muy diwaanu Paquetas Jalla nga xam diwaan bi ñu ngi ko tënk ci daara joo xam ne ci Serigne Touba lañu tënk di dëkkee sàkku ak taalibe ak di sant yàlla ak yonent bi ak jëmmi Serigne Touba ñu booleel saa su ne ñu tënkaale ci itam jàlla jàlla ñu tënk ko ci jaamu yàlla liggéeyal borom Touba ñu jiital kon ci sunuy mbir ci li sëriñ Serigne Touba tënk muy jaamu yàlla mbooleem fànn yoo xam ne nii bu ci nit. jaaree gën a jege suñu borom rek Serigne Touba def na ci kéem kàttanam ngir ñun muritam yi nga xam ne ci moom la ñu yaakaaree ndimbal ak xéewal ak tawféex ëllëg suñu suñu suñu suñu borom mën nañ cee aw ba ami tawféex rek ñu ngi fay awale. man mii itam mu boole ma ak yéen def ma may seen jëwriñ ci liggéeyam bi ma dëkkee di leen soññ saa su nekk ci na ngeen fonk jaamu yàlla sax ci ak njub na ngeen am yar ami teggin na ngeen di yërëm ñu leen féete ndaw te leen jox cër ñu leen féete mag bu leen tooñ kenn te ku leen tooñ na ngeen ko jéggal ngir jëm yàlla jaamu yàlla gi nag dañ ci def sabab suñu kem kàttan waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ne euh, suñ boroom dafa wax ne yéen sama jaam ñi yéen ñëpp réer ba mu des ñi nga xam ne nii man maa leen gindi kon sàkku leen ci man ma gindi leen yaa ibaadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum kon nag danañuy sabab jëm ci jaamu yàlla waaye lii tax ab xol gëm nag moom loolu suñ borom la wékk mooy xool xol bu ko neex mu mu mu def mu jublu ko def ci ak leer kon jaamu yàlla googu ñu jiital suñu mbir nañ ci def suñu kéem kàttan ca te bañ cee tay yu mukk waaye lay lay sabab nag ñu teg suñu mbir ci yoon mi ngi wékk ci jëmm suñu borom waaye lépp lu mu lu sëriñ bi diggal ngir ñu góorgóorlu ko ci suñu diggante suñu borom rek nañ ci def suñu suñu kéem kàttan beneen bi nga xam ne moo ci toftalu mooy liggéeyal borom Tuuba jamono ji nag buñ ci nekkee fas yéene liggéeyal Serigne Touba suñu kéem kàttan liggéey nag buñ ko waxee nekkul ne dañ koy tënk ci jaamu yàlla googu rekk ma wax donte moo ci moo ci moo ci jiitu waaye Serigne Touba dafa xàll dëkk bi nga xam ne mooy tuuba daal ñaan ci dëkkam bi mu doon barab boo xam ne barab la bu ñuy jaamoo yàlla di fi jàng ak di fi jàngale ak mbooleem xeetu lu baax rekk ñu sàkkoo ko fi kon loolu ba tey day tënkuwaat ci jaamu yàlla ji nga xam ne moom lañu jiitaloon barab nag buñ ko sababee taxawal ko ngir ñu fay jaamu yàlla ak di fa def lu baax la gën ca barab ba mooy sell ak taaru kon dëkk bi di Touba laaj na ñaar yooyu mooy doon dëkk bu sell ba noppi doon dëkk bu taaru itam sell gi nga xam ne moo war ci dëkk bi nag Sëriñ Touba fag faggu na ko def ko ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba nga xam ne ak sell mi ngi fi ba lu fi waaye jaamu ci digganteem ak boroomam rek nangoo ko fi moo gën a jàpp jàppandal ci feneen fu ñu ko sàkko taar bi nga xam ne nii nag moo ci topp te war a nekk ci dëkk bi nag ñun ñi nga xam ne suñu borom taw féexal nañu Sëriñ Touba tànn ñu booleen ci boppam ñun ñoo war a def suñu kéem kàttan ba taar boobu mën a am ma ñëwoon nag den loon doon leen soññaat ci wet googu itam ginnaaw bi ma leen soññee ci seenu jaamu yàlla ma leen di soññaat ci suñu dund gi dañ koo tënk ci jël bakkan jox ko Serigne Touba lépp lu ci bëgg rek ñun loolu rek lañ ci bëgg amuñu bëgg amuñu bañ ci sunu bopp lépp sëñ sëñ Serigne Touba lañ ko lañ ko lañ ko tënk euh, koo xam ne nag dangaa jël sa dund tënku ko ci liggéeyal Serigne Touba war naa am ak farlu ak pas-pas ak passeef goo xam ne moom mooy nekk ci yow ba noppi itam képp koo xam ne jël nga sa lépp jox ko Serigne Touba ngir bëgg Serigne Touba liggéey loola sa dund waroo koo jeexal ci lu la soob def loo xalaat ci sam xel def nu mu la neexee ak biir nu mu la neexee rek nga def ko da war a dëkkee ci rafetal sa jikko ak say melokaan ak say doxalin te yitte ci jamono ji gën te rëy yittey liggéeyal Serigne Touba. kon nag ma leen di soññ ci ne Serigne Touba ku ko liggéeyal moo la taamu taamu ngir nga liggéey ku ko liggéeyal liggéeyal rek moo la taamu ngir nga ngir nga nga ngir ko waaye dafa fekk na nag yëfi Serigne Touba dafa set te dafa sell te lu set lu sell nag ci ndab lu set rek lan lan lan koy def te nit bu bëggee setal ndabam dafa war a lu ci digganteem ak boroomam noonu la Serigne Touba bëgg ñu ni mel. kon nag nañu góorgóorlu suñu diggante ak suñu boroom ngir jéem a setal suñuy ndab ba Serigne Touba taamu sunuy ndab ngir mën cee def ay bëgg-bëggam ak i dencam mooy taamu gim ñu mën a taamu ba jox ñu ay mbiram ñu mën sukkandiku ci kàttanam googu ba mën koo liggéeyal liggéey gi nag génnul tàmbalee ko ci dëkk bi di tuubaa mooy comme lu mel ne tuubaa ci kanam ci doxalin wii nga xam ne ñoo ngi koy doxal jëm ci seen diggante ak Serigne Touba liggéey bi mënta mënta génn loolu. ma gis na fan yi ñu ngi wane dëkk bi di Touba lu mel ne inondation yi nga xam ne moo fi am ak yeneen ak yeneen ba nga xam ne boo ñëwee ba nga xam ne jege nga ci jumaa ji sax da ngay gis ci ay wet yoo xam ne day mel noo xam ne rafetul ci gisin ci dëkk bi ci dëkk bi di Touba. suñu dund gi yëpp dañ koo jël jox ko Serigne Touba te fas yéene wuñ lu dul fii suñu bakkan yi ñu ngi koy yor ñuy fas yéene di liggéeyal Serigne Touba suñu ngirub dund mu ñëw ngir di leen wax ne nanu àndandoo farluwaat ci bëgg-bëggi sëriñ bi dëkkam bii di Touba ñu fexe ba mu mel ni dëkk yëpp mel ci dëkku jullit yi di Makka ak Madina wala sax mu gën koo faw ci ak taar loolu nag du du tëb tëb mu sotti du dañuy yor kom itam moo tax mu mën a sotti déedéet day fekk mu doon sunu bëgg-bëgg ak sunu yëg-yëg ñu teg suñuy mbir ci yoon di ko sàkku ci suñu diggante Serigne Touba. ba Serigne Touba defal mu taw fee xukk ci ñi nga xam ne ni ay liggéeykatam te Serigne képp ku mu liggéeyloo rek dina la jox jumtuwaay yi nga xam ne ni moom nga koy na nu gën a farluwaat kon ci bëgg Serigne tubaa ak wóolu Serigne tubaa ak doyloo sëriñ tubaa te suñu kéem kàttan ñu jëmale ko ci dox ci bëgg-bëgg sëriñ Touba itam ngir bëgg a dajeeg ngërëmam àdduna ak àllaaxira ndax ngërëmal Serigne Touba ci noonu kat mooy ngërëmal yonent bi mooy sallallahu taala alayhi mooy ngërëmal suñu borom itam te mooy suñu tex texe àdduna ak suñu texe àllaaxira kon loolu nañ ci jiital jaamu yàlla ak fonk suñu diggante mbindéef fii tey bañ di tooñante ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa dafa wax ne suñ borom wax na ne xaraamal naa ci sama bopp tooñ te xaraamal naa ko ci yéen kon bu leen di tooñante ci seen biir yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamun kon nga xam ne lépp lu nu wax fii di ko sàkku ci suñu diggante ak Serigne tubaa ngir Serigne Touba taw feexal nu ba nu bokk ci ay liggéeykatam bokk na ci li ñu ci gën a mën a dooleel mooy fonk jaamu yàlla te fonk jaamu yàlla itam wax nañ ne jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla yi waaw nañ ko ba ba ëllëg lañ fay gën a ragal ci loo xam ne mën naa sànq sànq nit mooy li dox digganteem ak moroomam waaye li dox digganteem suñu suñu borom saa bu ne yërmande suñu borom mën na cee dimbali nit ki. kon nanu fexe ba góor góorluwaat suñu kéem kàttan suñu diggante ak suñu boroom ak middeef itam dina waral mën naa setal suñuy ndab ba nga xam ne nit ñu yaakaaru la ñuy doon ba Sëriñ Tuubaa mën noo defal taw tawfeexu jël suñuy ndab def ci def ci def def ci ay mbiram loolu nga xam ne bëgg nañ ko suñu diggante ak muy liggéeyal ko dëkkam bii nag di di di tuubaa nga xam ne ci lañ war a def suñu suñu suñu kéem kàttan am na nu ci ci nit di fëse ci ab liggéey ngir mu mën a taaru nit kooku noonu day doon ko xam ne ku waajal boppam lay doon ci ay ci ay ci ay melokaan yoo xam ne melokaanu jullit lay doon melokaanu murit lay doon ok kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax tey ñaan Serigne Touba defal taw tawféexu ñu jël suñu bopp tënk ko ci ay bëgg ci ay ci ay bëgg-bëggam ni ma leen ko junjee woon sànq itam ñu def suñu kéem kàttan mooy képp koo xam ne nag bëgg nga yan bu ni mel tegu ci sa kaw nag moom yi nu wax danga ci tënku muy fonk jaamu yàlla ak rafetal sa digganteeg mbindeef yi ndax Serigne Touba kuy xajamal du yori mbiram koo xam ne nii itam dafay dafay sàkku nag ñu yan ko yan bu ni toll ci liggéeyu Serigne Touba itam comme ni ma leen ko waxee woon war naa jomba dem ko soob dox lu ko soob nelawee nu ko soob te kooku itam war naa jomba doon ku ñàkk fit war naa jomba doon ku ñàkkum xel war naa jomba doon koo xam ne nii ku jub bëgg a jam yoon wi wala mu bëgg a jam lislaam jaare ko ci moom kon li ma leen bëgg a wax foofu mooy mbooleem li ñuy bëgg ngir doxalee ko ci suñu digganteeg sëriñ tubaa ak mbooleem mébét yi nga xam ne am nañ ko suñu digganteeg Serigne Touba Serigne tubaa mooy xool ku ko soob mu teg ko ci loxoom te ci ki ñu gën a yaakaar ngir mu teg ko ci loxoom mooy ki fonk digganteem ak boroomam te fonk itam digganteem ak mbindeef yi kon maa ngi delluwaat yéen sama mbokk taalibe yi di diwaan bi maa ngi leen di soññaat ci ci loolu te ngeen xam ne ñun dañoo jaayanteeg Serigne Touba ngir sunu dund yëpp ngi jeexal ko ci moom sunu liggéey nag nañ ko tàmbalee ci taaral dëkkam bi ba mel ni nga xam ne nii moom la ko moom la ko moom la ko sëriñ sëriñ sëriñ bi bëggee sëriñ bi nag ni nga xam ne nii moom la yeyoo ci taar ak defarin loolu amul ci ci àdduna amul taar wu ñuy taaral ci àdduna bu tax mu dab lenn ci nit ñu war a taaralee sëñ bi ay ay ay mbiram te itam du lenn àdduna loo xam ne sax yitteel na suñu borom ci ay mbiritam waaye nag bu ñu nee liggéeyal sëriñ Tuubaa ci àdduna jii lañ ne te ci lañ ko mën a ci lañ ko mën a liggéeyalee te mënuñu koo liggéey liggéeyalee lu dul fépp foo xam ne xàlloon na ko ngir bëgg fa jaamu yàlla sax fa ñu saxal fa njàng ak njàngale ak sax ci jaamu jaamu yàlla ñu fexe ba foofu ñu valoriser ko ba mu ba mu mel ni nga xam ne yëf yi suñ borom war nañ ko ñoo nga ñoo nga ñoo noonu loolu rek mooy yittee Sëriñ Tuubaa bu fekkoon ne dañuy mën a nekk ci àdduna di yóotu ja ci ci àjjana di ñëw di ko samp fii kon ñu seet yoon wa nga xam ne mën nañu am yoon woowu ngir samp waaye àdduna nag boo fi nekkee li ne ci àdduna rek nga mën a nga mën a nga mën a jëfandikoo kon li ne ci àdduna la ñuy fexe ba def suñu kéem kàttan ba lépp lu ciy taaral ñu fexe ko indi ci dëkk Serigne Touba bi loolu nag Serigne Touba mooy xool ku ko neex mu teg ko ci loxoom te ñi jub te teg seen bit ci yoon ci lañ ko gën a yaakaar asalaamaaleykum soo waxtaan boobu nag lii lu ma doon proposé la rek ngir mu doon loo xam ne jàpp naa ne ñun bu amee yéene liggéeyal Serigne Touba te jaaree ko ci dëkkam bi bokk na ci li nga xam ne ni mën nañ koo tàmbalee mooy fexe ba gëstu lotissement bi def Touba ak nombre kilomètre yi ak fan la dëkk bi yam ci wàllum dëkk bu ko defee ñu jël kayit yooyu yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñu xarañ lañ ci wàllum étude ñu defal ñu étude boo xam ne nii dañuy xam ne Touba buñ bëggee tali yi daj fépp canal bi jaar yoon te dem fépp canalisation yi espace vert jaar yoon courant bi jaar yoon lépp lu dëkk di soxla mu jaar yoon ñu fexe ba mu am fi kat lii bu ko dëkk bi amee budget boo xam ne nii lii am na ko ci keesam mën nañ koo liggéey ba nga xam ne nii fépp fu dëkk bi yegg tali dina fa dem fi ñu war a dalate ñu dem fi dootuñ am jafe-jafe ndox euh, garab yi dinañ fi def lu doy ñu ne ñu cinq cinq mille cinq cent milliards mille milliards mille cinq cent milliards deux mille milliards trois milliards boo leen ko amee mën na leen a seen dëkk bi ba mu mel ni mu war a mel murid yi xam ko loolu buñ ko xamee mooy gën a yomba jàppandal ci nii nga xam ne fii day yàqu tey duñ xam fan la jafe-jafe bi féete nga xam ne bu ñëwee jëmmi dëkk bi yëpp mooy nekk ci travaux nga xam ne ci ci jumaa ji la ñuy tàmbalee rond jumaa ji nag di di liggéey di di muy màgg di jëm fa dëkk fa dëkk ba yem nga xam ne buñ demee ba ne dëkk bi kat fii la yem buy ëllëg buñ xëyaatee ñeneen ñëw dëkkee ko itam foofu la ñuy wéyalee suñu suñu suñu liggéey rek dox comme ni ni nga xam ne moom la moom lañ moom lañ defaree université bi nga xam ne bi ñu xamee ne 37 milliards la loolu moo sabab ci Euh, amuñu jafe-jafe yi mën ko mën mën mën koo financé loolu nag proposition la itam boo xam ne jox naa leen ko yéen sama mbokk yi keneen koo xam ne am na ci beneen i xalaat itam rek wax ñu ne dëkk bu ko bëggee développé bokk na ci liñ mën a sukkandiku tàmbalee ko mooy mooy mooy mooy mooy lii tamit canalisation yi ñuy wax fi ndox mi di daje nekk ci biir dëkk bi mënoon nañ koo jël génne ko ci dëkk yi nga xam ne ay dëkki njaboot Sëñ Tuubaa lañ doon ay dëkk yu mag ñu dem def fa canal yi versé fa ndox mi baykat yi mën a mën a mën a nekk foofu wala wala murid yi mën a dem ci ay tool yoo xam ne dañ fay versé ndox mi ñuy dem di fa liggéey loo xam ne lu fa ñoree ci Sëñ Tuubaa lañ koy indi.